sidna nabi kaw weer wi niñ ko defee nii it expression la waaye am na yeneen parce que gis nañ ne ci at mi jigéen ñi faatu nañ ci lu bari te dañ leen faat sunu njaboot yi aussi faat nañ leen faat nañ ci yu bari donc 8 mars bi bu particulier la te waaye am nañ ci aussi benn ak acquis mooy criminalisation du viol am nañ ci loi ba président promulgué ko loolu tamit ah boobu plus la waaye li li ko ñuulal rek mooy jigéen yu bari ndeysaan ci 2019 yi soit seen ay jëkkër wala ay agresseur ñoo leen faat ah ñu ñaan yàlla yàlla yemale ko foofu te état gën a jël ay mesures ndax jigéen ak xale ñoo yor société ñooñu bu ñu manqué ci société bi rek société dootul amati kon yàlla nañ ci yàlla musal waaye Ablaye am na solo ndax gis nañ ne taux de viole yi dafa bari mun na dissuader mën na tax ba mu wàññeeku et puis man dafa mel ni man ba ma déggee loi bi ba léegi oh, parce que dañ daan xëy chaque matin dégg ay viol ay viol fan yi dégguma viol de kon loi bi am na fi solo te xam nañ ne justice du badine jigéen ñi aussi du ñu badine ci loolu dootuñu mayati kenn muy sàkku ay xale yu jigéen wala leneen ci ay maali foro mel ni ay mala kon nag nañu dellu ci yar mi yar ci à mais loi bi loi bu baax la boo xam ne xam naa ëllëg dinañ ko gën a càmbar gën a yokk mais am na solo ci DUCAD ndax fan yi yëpp wax dëgg yàlla mbir yi xaw na calme tuuti kon nag nit ñi xam nañ xam nañ bu ñu yoree euh, lii tubaab bi di wax épée de Damoclès buñ ko tegee rek nit ñi dinañ yemale seen bopp kon loi boobu loi bu am solo la bu ñëw boo xam ne ni ah dina gën a aar xale yu jigéen ñi dina gën a aar xale yu góor yi sax yu ndaw yi sax dañ leen di violer dina gën a aar jigéen ñi macha allah ah li des rek mooy ñu gën a ñaax état Sénégal ñu appliquer te application bi bañ a nekk kumba am ndey kumba amul ndey nañ ko appliquer ci ñëpp ah ñu def ko euh, sentence bi war ndax ay 5 ans 10 ans dafa doyut nañ dem ba 20 ans travaux forcés buñ ko fi defee ñaar ñett ñeent ba castration rek léegi mbir mi jeex. sidna nabi kon wel wi